ma yëgal leen ni leen diw murit la diw xaadir la diw tijaan la ñu ngi mel ni diw dafa xees diw dafa ñuul diw defee xeereer teew sa bokk ndey ak bàyyi te foo gisee ñett ñu bokk ndey ak bàyyi am te kenn ku gàddu ko bëgg caa tam kenn dafa yëngu waaye mënu mënu ta fexe ba ñu tam te kenn te tabaari wuñ ko ñett ñu bokk ndey ak bàyyi doon bi rek a liñ jur loolu na leen wóor ci kon nag li ma leen ci sant moo di saa bu ngeen ci setee kuy wax ci ab tijaan lu wër tey murit wala tijaan buy wax ci murit lu wër tey tijaan wala xaadir buy wax ci murit ak tijaan loo xam ne wëru la ma leen ci sant booba daal mooy a yàlla santaane def leen ko fa aril hanhum hatta yaqulu bi seen xayri loolaa leen sant def leen ko